benn waay doon na. Sabo baax nañu ah. Ibnu Sahri Sadali. Sabo yaakaar naa Sabo baax Ibnu Muhammad. Sabili Seydi Abubakar il Kabir doon na fanaan wa zaaka nag Yosef Ibrahima. Salil Ousmane Ribdal Xawib. Nekk lu Souleymane Salili Seydi mali wakwe ndo abdutamati mufadali salida mtamala lawai wazaka nakribati lai سليل أخوان التميم الأسوات سليل سمات المقال الأحداث ند العمر المؤمن إلى لسان سليل لا لسجعي لسان ابن علي سيف وجات لسان ابن ملاي واسمه سيدان بعبد المقد قد يتان ابن الفقير عبد الكريم ابن الهداي ابن الإمام تالي من البرداي الأحمد ابن عبد الرحمن تالي يحيى المرتضى زيداني تالي عبد القادر جيلاني تالي عبد القادر جيلاني ni maakaani ni ngeen bokkee te noonu Abdou Khadir Jeylaani yéen xuree ci ngeen tërif ngeen te dëgg yéenay bàggee ñaari boor seen waay bi muy mokk waayu keneen di rasulullahi seen maam am di ma ca pom fii di ma ca calle Abdourahman ma ca jumlay ak mbàkk ma teel a reer lu xamul mbaa may fan yokk wa dama koy gàttal waaw ah ah jërëjëf waaw gaa yaa ngi bëgg a tàngoor sax waaye dama koy dagg rek ndax li li duuf ci cër ah damay ñëwaat ci yow ca kanam waaw kay ñu ngi noonu saa jërëjëf فربنا لا غيره المعين koo ñaawal Mouhamad wooy boppam pour ne bàyyi alal taay seen yaay نعبد ونستعين كلمة ضمنها هكذا سلام كثير المسك بل هي أطيب أو تعذبة الراحي بل هي عذر سلام أمر الله بردها أو بأحسن منها فقال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسبا تحية العرب والإسلام القائلة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu kàddu yi du gudd dañuy def li arab yi naan baraatul istihlal ubbil Cheikh Al Khalifa ndax garab bu soxor soo ko jubee bëgg koo jekku da nga koy fenn fenn côté yëpp maa ngi kajoor boo fellee côté yëpp di nga a jekku garab ga moo tax ñu koy tëm hiidal dafa am mag mu baax mu xool Cheikh Al Khalifa ne ko lahul fasaaxatu wal nutqu wal bazlu bilaa mannin wala daxiil te ci looloo tax xalifatul am di taifatil qadiriya di abu ruux li zuriyati jaddina Cheikh Abina Amatul Kunti Cheikh bu ibnu mam Cheikh Sidil Muxtaar ibnu Cheikh Abu Mohamed ibnu Cheikh Abu Naama jël ko ne ko dama lay def sama naatiqu rasmi sëriñ bi ne jël naa naatiq bi remplacé ko xaadim daan jël naa sama bopp tuddee ko kuy liggéeyal sëriñ ay kàddoom moo gën a lambe moo gën a jot moo gën a jotal ndax nee nañ ko lahul fasaaxa borom fasaaxa la wan nut ku am kàddu la bañ tuddee ko naati ko rasmi bila mannin du maye te di ñaaxaate wala daxiirin yorul ji max kooku moo leen gane si tey ànd ay mbokkam Cheikh Al Khalifa ñëpp yow la ñu déglu Cheikh Al Khalifa nee na mi ngi nuyu ñëpp ci nuyoo bi ñu yàlla digal pour ñu koy nuyoonte suñu diggante mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nee na waxul ay kàddoom waaye kàddu xalifatul aam li taifatil qadiriya di cheikh bu ibnu maam cheikh sidil muxtaar moom lay waxe nee na waaye bu muy ñëw ñëwul moom rek dafa ñëw ànd ak njabootu sëriñ bi ndax bis bi tolluwaay bi mu am ci moom moo tax ba muy ñëw mu ànd ak njaboot yëpp. ki nga xam ni moom mooy Cheikh bu Diop leeral na mbokk gi mbokk googu nag moom sëriñ bi ku ko xam la te ku ko tee la moo tax sañunu wuute lu mel nii ak lu mu xat xat xat ak lu ñu wére di wéré di mu boole ñoom njaboot gi yëpp nee na Cheikh Ahmadou Bamba di doom ci maam Sidi Yaxya ñeenteelu xalifa Cheikh bu Mouhamed Kunta di rakkam di rakk ci bi jiite mbooloo mi nga xamante ni ñëw nañ ànd ak taawam di xalifa Cheikh bu Bekkaay di Cheikh al Bekkaay boole ko ci ànd ak Cheikh Sidi Lamine mi nga xam ni doomi boppam la am ak ñi nga xam ni ñooy xëtëru Ndiassane yëpp comme ni ko El Hadj Cheikh Diop waxee léegi fekk njabooti boppam yëpp ndax njabooti boppam ñoo nekk ci tànt bi foo dawal sa bët tegu ci njaboot gi yow mii dawal sa ci njabootam nga bokk muy ndànk ndeer sañ ñëppam ci jotaay bi nee na loolu nag dafa tombeeg bis boo xam ni. budul won ak sëñ Mbengue Gueye nii ndax jotante nañ sànq ba ñi mu àndal utaloon nañ ko ngat mbiri kat am na ci yoo xam ni kenn du ko leeral waaye Cheikh Bekkaay alquran njabootum sunu maam xaari Bourama Sidi Chérif ni ñu toll ci askanu Kunta ëpp nañ ñuy xewle

tur bañ ko tuddee nee na gàkkub daara lañ rey kon doomi daara fu mu mënti nekk daara rek la war a mun a taxaw bala ngay jaamu yàlla da ngay xam borom bi ba pare doog koo jaamu ndax yàlla nee na na ngeen ma xam ba pare doog maa jaamu ci xadisul kursi xam yàlla nag bokk na ci xam sa mbokk te maam Cheikh bu naa ma ba mu fii ñëw moom rek donc seul la woon ci taxawaayam en vingt ans ci la lépp taxawee sunu maam ju baax di maam xaaji Bourama Sidi Chérif nee na li mu bokk ak Cheikh Bourama ndax moom ak maam Cheikh Albekaay ñoo bokk ndey waaye wàññeeku askan Kunta gépp mu bokk ñoom sunu maam Cheikh Abdou Khadir Jilani Sultaanul Awliyaa ndax suur fa dafa yaatu xasan la am xuseyn ku ne am njaboot waaye xasan gën a njaboot karbala ñii dem ñii des njabootu xasan des cheikh abdul qadir jeylaani bokk ci askanu kunta bu ñuy fëgg seen dënn ci ci ci teddaangeeg shérif cheikh abdul qadir jeylaani tax ndax du kenn ku dul cheikh bunaama doomi soxna mun na ممنا دوم سيتو سي عبد القادر الجيلاني دو كان كودول شيخ سيدي محمد دوم سخنا مريم سخنا مريم دي دوم شيخ عبد القادر الجيلاني كون لولي بوجو خيولي بو فا اسكن كنت تيول كو فا تيو دو صافي نوكو نك باغا خامني غويت نيوم نيوي خطو الاستواء ci xabila bi nga xam ne mooy xabila kunta ndax kunta yëpp lañ bokkal kon sëriñ bi nee na yéen waa Guyette bala moo dem ci kilifa yi nee na mi ngi jaajëfal di encouragé ndaw ñi ndax ñoom Chérif Khoye Aïdara mi ñoom Chérif Ibnu mi ñoom Serigne Moustapha mi seen taxawaay bu amul woon leneen mooy am lu dul li te lu war a rafet bu rafetul faaw mu ñaaw nee na seen taxawaay ak seen yitte ak seen dogu may na xar kanam gu yet beneen kanam bu gën a rafet a rafet ndax mag ña nee na tilka ummatun xat xalat lahu laha ma kasabat walakum ma kasabtum ñoom maam xaali bu naama Sidi Chérif ku yàlla nangul la la yàlla di wone faaw mu am njaboot ñoo xam ni ñuy taxawal diina lañ ni sëriñ Mbay mi wax léegi tant bi li rafet rafet jotaay bi li rafet rafet lenn moo ko waral maam xaadi calam nekkoon ndax dafa nekkoon ci ñi nga xam ni ñi minal mu'minina رجال صدقوا ما أهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا في الله ليجزي الله صادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما الله أكبر من قال بنا مسجد الشريف بوقت من قال بوكو تي ميغا خامني لله عباد اذا ارادوا اراد رب ذي غمر اشعش اغبر لا لو اقسم على الله لا ابر والله مو بوك سيرن بي في لون كون بودوند تيميري ات غيناوا نجاواتام دي ريزيستي تي كلمه الحق بات دك nee na loolu mooy dëgg ndonali bu leen ko fooye loolu ndonali bu leen ko yàq nee na lislaam bee ñu boole deret ñu boole pas-pas moo ñu boole dëkkandoo moo ñu boole nit mën naa wax ba yàq ci biir mbokk waaye wax ba yàq mbokku lislaam nit loolu mënta am mukk sëriñ lii nga def nii layal nga lislaam lii nga def nii sagal nga lislaam lii nga def nii def nga la sa maam amari ndaat góor a defoon ndax yéen ba jaasi di maye dara jaasi daf leen may diine ba kurus di maye diine kurus tourné mayaat leen diine nga am cër bu mag a mag a mag ndax naka li nga xam ne moom mooy toroxlu dafa bokk ci mandargay jikko yi nga xam ne dañoo ragal yàlla te toroxlu rek ci la nit ki ragal yàlla mbëgg a yéegee ci kaw a kaw ba yegg ci borom bi nga xam ne moom lañu war a ragal kon sa nekk nitug yàlla kenn laam laaweew ndax képp ku ñu woo ci gàmm ngay xalif général liy tàmm ci réew mii mooy yàble waaye yow da ndax da ngaa xam ni bu woowu la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo la woo kon yal na yàlla fay ci sa taxawaay kàddu sëriñ bii ñuy wax budul woon ak ñañu àndal ak yitte yi ak ñi ñuy xaar ñu ne suñu wax amul njëriñ yow la ñuy bàyyi nga féete woon lépp ndax diine lislaam kilifa fu ne war na faa nekkal keneen bu ànd ki dëggoo Cheikh maam Cheikh Anta Gaye yal na yàlla may fan wu gudd nee leen amiin sa nijaay sa waajur sa mag sa wëllëre sa mbokkum daara mi lay tàllal ay loxoom ngir nga koy ndax nag ku am garaat buñ lay dàkkantalee alxuraan soxlaatoo xilaafa ndax xilaafa lu ñu sos la rek organiser ndax li ëpp solo mooy nga nekk koo xam ni wuutaakoon wuutaakoon na munoo koo am ci xadra bi nga xam ne mooy xadratu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu alxuraan ndax alxuraan rek moom la yonent bi wax ni lu ci nit ñaan yàlla may rab ndax ba muy wax allahuma man nii ni naka man inni abduka wam na amatika naasiyati بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك نسألك من كل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب إنك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء أحزاني nee na loolu xadis bu wér la Cheikh Baye daal xadis bu wér la te alxuraan rek a ko jagloo kon boo fi toogalee alxuraan diine gépp nga fi toogal waaye loolu laa xar wa kuñ ne yonent bi mooy samaam te mënoo toog toogin yonent bi dañ la ko jiiñ waaye doonoo ko kon kunta kunta fi fekk yëpp nee way jur fi fekk yëpp Serigne Bouna ak Amet Naar ñëpp ñi suñu kilifa nee na leen di ziar. di beneen ziyaara Cheikh Baydaan ndax alxuraan ji ak daara ji di ndax daaram ji di daari daara maam xaari bu lam sidi loolu rek moo tax ñu sañ ci dëkk bi Mamadou Gueye mbokkum taalibe nga monsieur le préfet xam nga xam na moom yi ci li ñu seet te li ko sëriñ bi waxee léegi maire wax ko léegi sëriñ Mayel Thiam mii Pam Mayel Thiam di nitu daara di taalibe sëriñ Babacar xam lu bari wax ko seedeel ko sëñ Mamadou Mamadou Gueye préfet fii mu toog nee na xolam dafa sedd ci loolu ndako askanu Kunta askanu Aydara yi mu yimi ci wàllu département ñaanal ko ndax ay màggam gën a diis ndax nitu diine dëgg Chérif Khoya la nee na ñoo ngi lay bu baax a baax di ko jaareel Serigne Mbengue Gueye mii ndax sunu diggante mook Serigne Mbengue Gueye mii yaa ko dox ne ko sa mbokk la ma dem ba seq moom loo xamul seq ak loo sox soxnaam lu la ump te nga feer ci lool ndax rassembleur nee na li ngay daj sa dëkk maam bii ndax amuñu umpante yéen ñaar amoo leen umpante xamees ngeen loolu nee na dafa am nag lu Cheikh Ahmadou Bekkaay waxoon dafa waxoon ni képp koo xamante ni tàllal nga nga jël sa bët yi teg ko nekk li nekk ci loxo yi nit ñi nga teg sa bët nee na kooku doo dee ci ko mukk ci ñàkk rek ngay dee képp koo xam ne du doylu ci li yàlla atte ci moom dafa mel ni dafa tuumaal yàlla ci dogal gi mu dogal képp koo xam ni gasal nga bépp baax nga gasal ko ñeel sa mbokkum jurit yàlla dana ci tàbbil képp koo xamante ni bocc nga jaasin mbew teeg bañee dañ la ci rey rek yàlla na yàlla mujjal ñu yàlla defal ñu jàmm salaamaaleykum wa rahmatulah